أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا إذا عاملته وجدته مليا وإن عاهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا wa nazratun bi ayni rahmatihi tusayira alkaafira waliya aljannatu liman ataahu walaw abadan xabashiya wannaaru liman asaahu walaw sharifan qurasiya qaala taala fi kitaabihi qawlan bahiya tilka aljannatu allati nuurisu min ibadina man kaana taqiya أحمده سبحانه وتعالى حمدا زكيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضي الله عن أص الوسائل ينبوع الرحمة بحر الحقيقة تاج العارفين وممدهم صاحب الختم والكتم والفيض أبي العباس أحمد التيجان alsharif alxasani alfatimi mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar fa tabaarakallahu di ñaan yàlla yàl na yàlla def jàmm ci réew mii di Sénégal waaye yàl na yàlla defal jàmm ñi nga xam ne ñoo dëkki réew mi fa tabaarakallahu di ziyaar mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mii di Sénégal nuyu sunu woyjur sëriñ kër Sy Mansour xalifa général de Tijane ziyaar ko bu baax ñaanal ko yàlla yàlla yàlla yokk wéram te guddal fanam lool bu ñu ko nuyoo rekk nuyu nañu mbooleem njabootu seex Seydil Haaji Malick fa tabarakallahu dem ba Louga nuyu ziyaar sunu woyjur Cerno Bachir Taal fa tabaarakallaahu bu ñu ko nuyoo rek nuyu nan mboolem njabootu cheikh alxaaji omar al fuuti yi di ñaan yàlla yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla dolli ci ñoom barke ak xéewal waaye nuyu sunu sëriñ sunu soppe sëriñ cheikh ahmad at tijani taal tabaarakallaahu responsable moral bu shababul ahmadiya nuyu ko baax ziyaar ko waaye di nuyu suñu kilifa fa tabaarakallaahu cerno xaamidu baan di ko ñaanal yàlla eh, li mu bëgg ci diina ji bëgg ko ci kër ci ci ci kër cheikhu Tijaani radiallahu taala anhu yal na ko yàlla defal tarixa cheikh bii mu ngi ciy bay waaram yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla yëkkati Cerno Hamidou ñu ngi lay ñaanal jàmm ak sutura xéwal ci daraje rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci télévision bi ñuy wax Safina TV nga xam ne Safina mooy gaal mooy gaal gi tabaarakallahu ñu nuyu la ñoom ñëpp ziar leen nuyu suñu directrice soxna yu Yuma ziar ko baax moom tamit ñaanal ko yàlla yàlla dolli jàmmam ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nuyu sama technicien bi nga xam ne fa tabarakallahu moo tax ngeen di jot ci image yi di alxaaji Samba si ziar ko baax a baax ñu ngeen ñu ñëw nag ci seen émission madhu nabi tabarakallahu te émission madhu nabi nag mooy émission bi nga xam ne fi la ñuy taggee sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tagg rasulillahi waaye jàngale sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kat yàlla rekk moo fi nekkoon di yàlla di bakk boppam moom yàlla di kañ boppam ba yàgg mu yëg ne bakk gii muy bakk boppam moom yàlla war naa am ñu ko ci jàppale ndax damay faral di wax ne mbër muy bàkk mu ne bëgg nga nag ay supporter yàlla jël ci leeram te bi yàlla jël ci leeram boroom xam-xam yi nee nañu yàlla daa xool fa tolloog xol ba bu fekkonte ne yàlla jëmm la ji am xol dafa xool fa tolloog xol ba mu tubb fa benn lum du benn benn leer ne ko kun habibi nekkal sama soppe danku leer boobu mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jëlaat ci leer googu nag daal di ci bind àdduna bi yépp waaye bind ci lépp lu ñuy gis ci àdduna lépp lu ñuy teg bët ak lépp lu ñu mënta teg bët moo tax maam sidil xaaji maali wax na ko ci xilaasu zahab fi sirati xayr al arab mu ne wa innahu iz araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuuran nabil alamin Maodo nee na wa innahu damiru sha'ni la lii mbir tey mbir is ba nga xamee ne araada namm na allahu bur yàlla nas atanaa amal ñu abaana la dindee abaana la feccee min nuurihi tukkee ca leeram nga moom yàlla lan la ca dindee mu ne nuur annabi leeru sayiduna muhammad alalami ki ñépp xam yàlla moo jël ci leeram bind ci leeru rasulillahi gannaaw ga nag mu jëlaat ci leeru sayiduna muhammad bind ci aalam bi yépp moo tax sa maam ni inna al awaalima aaliha wa saafilaha ñoom talaat min afdali nasabi alaaji malik nee na mboolem awalim yi te ibnu abbas nee na quatre-vingt-dix mille alam ñu am alaaji malik ne yi ci gën a kawe ak yi gën a suufe ñoom ñëpp ay ceeñeer lañu yoo xam ne ñu ay ballee ci jëmmi rasulillahi sallallahu alayhi wa moo tax jibril malaika dafa toog ba yàgg njool mooma njool màkka ñuy waxtaan sayduna muhammad ne ko jibril maag yow ko mag jibril ne ko maa la mag sayyiduna muhammad ne ko maa mag jibril ne ko maa la mag njol màkka ne ko maa la mag njol màkka laaj jibril ne ko waaye yow jibril bi la yàlla bindee lan nga fekk ci àdduna jibril ne ko man day bi ma yàlla bindee benn étoile laa fekk ci kaw àdduna étoile boobu su mosaan a génn mooy biddiw su mosaan a génn ba ma teg ci sama bët man jibril dinaa toog soixante dina toog soixante dix dina toog soixante dix milan ans door a duggaat ci biir asamaan bi su duggee ci asamaan bi dina fa toog soixante-dix mille ans door a génnaat Jibril ne biddiw boobu man Jibril gis naa ko soixante-dix mille fois njol Màkka ne ko ana zaakal kawkab gis nga Jibril biddiw boobu nga doon gis muy génn naka dugg mooy man mii man sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fa tabarakallahu moom mag ñëpp ndax moom la yàlla njëkk bind moom rasulillahi moo tax aadama mooy suñu baay ci zahir waaye sayyiduna muhammad mooy suñu baay ci baatin ndax yonent yàlla aadama ci leeru ko rasulillahi la ko yàlla amale moo tax moo tax sayyiduna muhammad moo fi jiitu yàlla nag bi mu bindee awaalim yépp nag te mooy adduna beeg ak yeneen monde yi mënta teg bët ak lépp lu nekk ci biir adduna bi yàlla def ko bind ngir teralee ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax sama seydi xaaj malik ne wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidil mahmud wa huwa habibu alaaji malik nee na yàlla bindul daara ngir jëmi boppam ku dul sayiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla muhammad rek la yàlla bind ngir jëm boppam ñu ne ko wax maam seydi haaji malik kon li des nag pour lan la mu ne li des lépp nag yàlla da koo bind ngir terale ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax kooku moo ñu gën moo ñu gën ndey moo ñu gën bàyyi moom sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li koy firndeel li lay wan ne rasulillahi moo ñu gën ndey du ko wax rek bàyyi dama koy layal maam Seydi Xaaji Malik nee na woy juróom bi ñuy wax abdallah bi mu amee dix-huit ans te l'islam dix-huit ans la nit di mesurer ci yenn mandarga yi am na yeneen màndarga bu ñu gisee ci yow karaw boo saxee karaw goo xam ne judduwaale woo ko mukallaf nga soo dee bay gént ah mukallaf nga en même temps boo amee 18 ans mukallaf nga kon Abdallah mi am 18 ans la ànd ak way juróom mu koy ñaanali soxna xam nga mag ak xale bokkuñu bi ñu jaaree Kaaba ga di wër Abdallah wër na ba yeggal toog di noppalu di xaar way juróom way juróom pareegul fi mu toog foofu am na benn ndaw suñuy wax Fatima marra ala mraatin tudaa bi fatimatin tabghi lmamala ilayha wa hiya lam turami Sidi Haj Malik ma ko wax ci mu ne abdallahi am na benn ndaw su rafet su ñëw ci abdallah ne ko abdallah dama bëggoon ñi ñu làqu fee maag yow mooy yàlla bu ñu mooy yàlla ba noppi dinaa la jox téeméeri giléem ak maleetu xaalis bu doon jamono ji dama naan mooy téeméeri kat-kat wala téeméeri oto abdallah xam nga lu ko lu ko wax amal xaraamu fal mamaatu duunahu abdallah dane ko def lu xaraam day dee moom a gënal nit ku mel noonu ci ndaw su rafet taar ba jéggi dayo lool nga mën a làqoog moom ci ruq ngeen def la ngeen def te kenn du ko xam ku dul yàlla nga pare mu jox la téeméeri 4 x jox la maletu xaalis nga wan gannaaw 4x4 ya wan gannaaw maletu xaalis ba ngir ragal yàlla kooku mel noonu yombut kooku sang piir moo ko man ngor piir moo ko man ku xam boppam piir moo ko man ku ragal yàlla piir moo ko man waaye ku yàlla dimbali it moo ko man abdallahi jaar na foofu kooku mooy woy juru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek laa ciy wax du ma ci du ma ci sori yaakaar naa loolu doy na ci ñu dem ci woy juróom amina maam sida aji maal nee na aminatu naqiyat an saairi tuhami nee na woy juru sayduna muhammad bu jigéen amul kenn ku ko mën a tuumaal ci lenn ndaw so jigéen la boo xam ne daa set wàcc mboolem lu ñuy gàkkalee jigéen dalu ko ku toogoon la ci ceetu way juróom ku yamoon la ku jàngoon la ku amoon xam-xam la ku daan pratiquer la ku nam ku nangu woon a jaamu yàlla la bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a maîtriser téere yonti yàlla isa alayhi salaam te bul fàtte nag avant sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñëw diine yonti yàlla isa la doon jaamu waaw ndax yonti yàlla isa moom mujj ci yonent yi avant sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam te it moom moo wax ne am na yonent buy ñëw sama ginnaaw ahmad lay tudd su ñëwee na ngeen ko topp gëm ko ndax diina ju complet moo ko yor wa is qaala isa bnu ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min altawrat wa mubassiran bi rasulin yaati min baadi yasmuhu ahmad loolu la yonent yàlla isa wax ko sayduna muhammad tudd ahmad ca kaw tudd muhammad ci suuf yàlla ko woowee muhammad ci suuf muhammadun rasulullah la yàlla muhammad mi ah man yàlla maa ko yónni wallazina maahu ashiddaau ala alkuffar kon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngoog wooy juróom a noonu set wecc ñaar ñoon ñoo meñ ñoo meññi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax muhammadul bushiri ne wa badalil wujudi minka karimun min karimin abauhu kurama muhammadu na am na ko feeñ ci adduna bi te dara taxul mu feeñ daa ñëw ngir teral adduna bi ñu ne ko mooy kan mu ne mooy muhammad te mu ngi bàyyeekoo ci ay wayjur yu tëdd yu góor ak yu jigéen maam Seydi Haaji Maalik ne min xiiratil karami lil xiiratil karami Seydina Muhammad daal ay maamam la ko dalee ci maam Aadama ba ci Abdallahi mi ko jur amul benn maamu rasulillahi boo xam ne mos naa def lu nan ay cam wala mu def loo xam ne bu diine ñëwee tere ko ñoom ñëpp ay gor lañu woon ñu maandu lañu woon diine bi ñu fekk bi ñu fi fekkoon dañ cee tegoon seen tànk di ko def comme ni ko yàlla bëggee bul fàtte nag yonent bu nekk bi la yàlla yónni la nga woote mboolem ku la ca gëmoon daan ko jaar daan ko def comme na nga ko waxee woon boo dee aljana nga jëm waaye nag bi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwee nag dañoo wax ne ña ñëpp àndandoo topp rasulillahi moo tax yàlla ne atiu llah wa atiu rasul topp leen ma man yàlla ngeen topp sayyiduna Muhammad yàlla yamul ci loolu mu ne qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhbibkum allah wa yaxfir lakum zunubakum njol màkk nee na yàlla nee su ngeen bëggee mu bëgg leen sopp leen jéggal leen seeni bàkkaar tabbal leen aljanna topp leen ma moo tax ku ko topp topp nga yàlla ku ko toppul toppuloo yàlla ndax kat laa nufarriqu bayna ahadi min rusuli la yàlla wax yàlla ne bu ñu séparé yonent yi nañ gëm ñëpp moo tax jullit ñi gëm nañu ku yonent waaye nag nañu gëm na sayduna muhammad mooy xaatimul anbiya mooy imaamul mursalin moom jol màkk moo mooy ki nga xam ne moom mottali yonent yi cent vingt quatre milli moo leen mottali waaye trois cent treize yi yàlla yónni mooy seen patron mooy seen njiit loolu dañ koy gëm te jëfe ko ba ca des bu demee yowmal xiyaam seex saadul abi nee na wa kulluhum yudaa ila shafaa fa lam yujib daayihi tilka saa Cheikh Saadul Abi nee na bu yow yowmal qiyaame yonent bu nekk daan ñëw ci yow di ñaan ngir nga def intervention buñ ca yeggee kenn du ñu tal ci yonent yi ku dul rasulillahi yonent yàlla aadama danaan am naa lu ma doy sëkk ndax yàlla tere woon na ma garab gi ma lekk ci yonent bu nekk boo dayee dëgmal ko rek mu ne man defoon naa loo xam ne nii doy na ma sëkk loolu laay lijjanti nu ma ca génnee ndax kat yonent yépp nag yàlla def leen joxoon ñaan ñaan goo xam ne nii saa buñ ko ñaanee yàlla nangu ko yonent bu nekk bi la saw xeet sonalee ba sonal la dangaa ñaan dangaa ñaan ñaan yàlla alag leen waaye sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu ca tollee ñu sonal ko lool mu nekk màkka di waare waa màkka lank bañ ko gëm di ko fitnaal di fitnaal ñu ko gëm di leen torturer di leen dóor di leen tëral ci naaju tàng bi yeew leen jël ay xeer bilaal daan nañ jël xeer woo xam ne yéeg na ci cinquante kilos ñu teg ko ci biiram ci naaj woo xam ne tàngoor wa yéeg na ci quarante cinq degré ñu yeew la nga tëdd ci suuf si mu lay lakk ñu jël ngandam xeer teg ci sa kaw dënd bi nan la waxal hubal hubal ab xërëm la bilaal naan allahu ahad yàlla kenn la ñu koy dóor ba mu sonn ba mu moot la wax allahu ahad mu mujj naan ahadun ahad ahadun ahad nekk ca loolu nekk ca loolu nekk ca loolu ba Abu Bakr Siddiq ñëw jënd ko goreel ko Sumayya jigéen la mu ngi bokkoon ci ala Yaasir xeej la ñu jël xeej jam ko ci awraam mu faatu ngir lan allahu ahad yàlla kenn la ñii ñu jàpp leen di leen dóor ba sa yaram yi di di di di nàcc ñu sonn lool ñoo ñooñ ñooñ ñooñu ñoo gëmoon yàlla dëgg-dëgg ngëm yàlla te doon défendre l'islam ñoo ñëpp rey ñu rey leen ci l'islam njol màkka sonn lool màkka ba mu ne gaa yi gàddaay leen dem xabasha bi njol màkka demee nag di dem ba yàlla may ko doole bi bi njol màkka nekk nekkee màkka ba sonn mu gàddaay dem fu ñuy wax taif taif ay ndijaayam ñoo fa nekk mu ne comme màkka gëmuñu ma te ñi ma jot a gëm ku su ñu ngi leen di bëgg ñu ngi leen di bëgg a rey naa dem taif comme samay ndijaay ñoo fa nekk mën naa am ñu jàppale ma am doole ndi ko waa taif ñoo gën a yées ba ñu demee taif kër gu mu fëgg ñooñu ñu ko yemuñ ca loolu jël dof yi nekk ci biir dëkk bi jox leen ay xeer ak yet ñu topp sayduna muhammad di ko dàq ñu jël xaj ya xaj ya topp njool màkka dof ya xaañi rasulillahi ci ci yeel alaaji mali nee na wasaaqa adma wasaala damu lil qadami laaqa min ashufaha ma la afuuhu bihi alaaji mali nee njool màkka wooy dese ji xel ya te mooy dof ya ah lam fu ak ñoom ca dëgg dëgg dëgg dëgg ma rus naa koo wax man Maodo ndax ñaaw ga mu ñaaw jéggi na dayoo rus naa koo wax waaye li ma mënta ñàkk wax daal mooy wasaaqa adma wasaala damu lil qadami xaaj nañ ko daal ba yeel bi da toj ba darajey rogalaat di di di jëm suuf keroog njool maaka mu ngi jël kaalaam gu tedd ga di fomp dere ji ndax deretu rasulillahi bu laalee suuf àdduna tukki kookoo bëri yërmande yàlla ne jibril alayhi salaam neen njool màkk ñaari montagne yaa ngi nii jox naa ko ndigal su bëggee rek ma màbbal ko sew ci kaw waa Taayif ñëpp faatu ñool maa jooy jooy ba yàgg mën na leen ndax yàlla li lii nga yéene sama xeet ñii dañoo xamut allahuma ixfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun yàlla jéggal leen billahi xamuñu bu ñu xamoon man maay kan man rasulillahi duñu def lii waaye jéggal leen mën naa am ëllëg seeni sët dugg ci lislaam tey boo demee màkk ñoo ñuy seeni sët tey ñooy jàng alxuraan di jooy ñii di jooy gi di ngir fàttali ko seen maam yi lan daan def ci lu bon ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku mooy rahmatul muhdaat mooy jëmmi yërmande moo tax yàlla ne ko dama laa yónni ngir nga nekk jëmm yërmande ci àdduna bi moo tax yéeféer yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam yéeféer yi bokk ci xeetu rasulillahi yowmal xiyaam ñooy gën a sedd mbugal lu tax parce que yërmande gi yàlla def ci rasulillahi daf leen laalaale ba tax na bu ëllëgee seen mbugal du metti lool par rapport ak yéeféer yi nga xam ne ñoo fekk jamono yonte yàlla Moussa alayhi salaam yéeféer yi fekk jamono yonte yàlla Moussa weddi Moussa lànq bañ a dugg ci diine Moussa bu yowmal xiyaamee mbugal bañ leen di mbugal moo gën a tar moo gën a metti yéeféer yi nga xam ne ñoo fekkee ñoo bokk ci xeetu rasulillahi te bañ bañ a jaamu yàlla bañ a topp rasulillahi lu tax parce que yërmande njool maaka moo toll noonu kooku mooy jëmm yërmande moom rasulillahi kooku nag la yàlla yabal ci ñun ne na ngeen ko xool ni muy jaamu ni mu may jaamoo man yàlla ngeen di ko def na ngeen ko xool ni muy jullee ngeen di ko jullee na ngeen xool ni mu daan jëflanteek doomu aadama yi ngeen di ko defee noonu ku maandu la woon moom rasulillahi amul ku ko gën a maandu amul ku ko dàq àtte amul ku ko gën a jub amul ku gën a ragal yàlla moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul ku ko gën a wàcce boppam moom rasulillahi xam nga li gën a yéeme ci njool màkka ku yàlla recevoir ca xadaraam nga war alburaa xotti asamaan juróom-ñaar asamaan boo dem ña ko dëkk génn teeru la tasaare la ay fulfuleur nga romb ba yegg ci xadara yàlla bi nga dee ba sidratul muntaha jibril mi la doon gunge ne man fii laa mën a yem mënatuma passé mënatuma romb fii ndax su ma passé benn paa damay ruy ba jeex tàkk foofu ngay déggee ne rasulillahi du moromu jibril njol màkka xuus dem ba ca xadara yàlla ba toog ak yàlla nu yàlla yàlla fay ko ñu toog waxtaan bi muy dellu si yàlla jox ko sëricë ne ko yóbbul saw xeet sëricë boobu mooy julli juróom yi ñu julli rasulillahi loolu lépp mu am ko xëy su ba war mbaam dem marché fii nag ku fi président recevoir on palais waxuma la sax mbaam waaye clando sax di nga ko rës dugg ngir lan président moom mooma recevoir luy président waaye gis nga sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu président wu président yi buur buur yi ki nga xam ne mooy fay fal fal buur yi qul illahumma malika al mulk tuutil mulka man tasha wa tanziu al mulka min man tasha wa tuizzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika al xayr innaka ala kulli cheyin qadir moo tax ku naan man maay fale xamuloo li ngay wax kiy fale mooy yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kum nam nga falu nga falu ak lu pexe yi bari bari bari kum nam nga fallu nga falu waaye comme bëgg a wàccee lu pexe bari bari di nga wàcc kum bëgg nga jóg lu nooni bari bari di nga jóg waaye kum bëgg nga wàcc lu soppay bari bari di nga wàcc yàlla moo yor tedd nga moo yor nguur moo koy jox ko ko neex jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kooku la njool màkka seeti toog ak moom waxtaan ak moom ñëw xëy war mbaam lépp rek ci wàcce boppam moom rasulillahi ndax xam na ne àdduna bi jeex na ba noppi dara jaru fee jaay li fi jara jaay xam nga mooy lan ragal yàlla ak wàcc sa bopp mbokk yi fi jamono tool nañ ragal yàlla mbokk yi ragal yàlla néew néew na léegi yàlla nañ ko yàlla séddee gis nga ni ngay ñaanee alal di ko ñaanee wër jot na léegi ñu koy ñaanee ragal yàlla jot na ñu koy ñaanee jikko ju rafet rasulillah li tax mu mën a jiite ñépp ñépp dëgg déggoo ak moom topp ci ginnaawam lenn rek la mooy daawul fëgg dënn man la daawul ngand ngandulu gisul woon boppam xeebul woon kenn wàcce boppam ba toll ak ñépp lépp lu muy def mu diisoo mu diisoo xoolal rek Sidna Omar njool Màkka danaa wax dara Omar taxaw ne ndax yàlla yaa ko wax wala yàllaa ko wax bu dee bu nee yàllaa ko wax mu ne aw ma ci xalaat waaye su ne maa ko rek Omar ne ko am naa ci xalaat ñu discuter léeg-léeg sa alxuraan wàcc ànd ak Seydina Omar moo tax boo dee président wala ngay kilifa wala ngay lu mën a doon loo mën a jiite war nga am ku mel ne Omar ibnul Xattaab koo xam ne day nekk sa wet di la wax dëgg waaye boo ànd ak ñoo xam ne loo def ñu la noonu la ngay toj dëkk bi rek ñu naan la noon la di nga toj ba dugg foofu foofu dul génn. moo tax boo demee ci borom daaliya danaa nit bu yàlla namee ci moom yiw da koy boole xel mu rafet xel mu wax dama koy orienté waaye président it bu yàlla namee ci moom yiw da koy booleek premier ministre boo xam ne daf koy wax dëgg tabaarakallaahu kon mbokk yi sayduna muhammad salaa sallam noonu dana àndeek nit ñi wala kunta fasdan xaliza al qalbi lan faddu min xawlik faafu anhum wa saawirhum fi amri ndeysaan ku mënoon a baale la ku mënoon a jéggale moo tax kilifa du fayantoo kilifa dafay baale kilifa dafay jéggale kilifa dafay jéllale waaye kilifa guy fayantoo kilifa goo xam doo baale kilifa goo xam doo jéllale doo am jàmm say njaboot duñu am jàmm da damay faral di wax ne sax boroom kër gi nga xam ne moo liggéey ba am xaalisam jënd këram tabax ko takk soxnaam ami doomam ca dëgg dëgg dëgg bu dul jélle du jéggale doo am ak njabootam ay jàmm chaque jour njaboot gi ne paa bi dafa métti wala paa bi daa ko nangam fekk la ko waral rek mooy critique bu bari njaboot gi faaw ngay jéllale parfois mais faaw ngay jéggale it nag loo am am solo la kon fa tabaarakallaahu sang baa ngi noonu moom la ñu yàlla royloo nañu ko roy ndax buñ ko royee suñ lépp baax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmil axir léegi nag ñun suñu problème mooy royatuñu Sayyiduna Muhammad léegi tubaab bi la ñuy roy ñii di roy américain bi ñii di roy indo yi ñii di roy chinois boo génnee rek dox ci mbed mbedd mi rek tey boo génnoon rek dox balaa nga ak sa kër di nga fi romb américain romb fi ab chinois romb fi indo romb lu ne ndax sa sol ya waaye ñun sunu culture sunu yonent lu tee ñu roy ko ba boo soloo ku la gis xam ne kii ab jullit la ba boo soloo xam ku la gis man laa xoolaat waaye boo soloo ba génn fekk waxuñu la noo tudd nga ne diw rek duñu xam ndax julli nga am déet ndax sa yaram baa ngi ci biti sa awra yaa ngi ci biti moo xam muy jigéen mooy xam moo xam muy góor te tey lislaam ne ab jullit bu góor li ko dagee ci jumba xam ba óomam bu ci dara feeñ gis nga góor du sol lu sexe du sol loo xam ne dafay tafu ci yaramam ba ko gis xam ne kii lii mooy formam jaaduwul jigéen tamit du sol lu sexe ba ko gis xam ne lii mooy lii mooy formam loolu jaaduwul nit da ngay sol lu jot sol lu yiw sol lu baax soo dee jigéen ngi ku la romb ku lay woo danaa la soxna si waaye boo solee lu bon benn tur lan lay wooyee kon fa tabaarakallaahu faaw ñuy xoolaat sol gi waaye léegi fi jamono toll gars yi xoolatu jàngatuñ seen diine xamatuñ naka lañuy ñuy soloo xamatuñ naka la ñuy waxe xamatuñ dara ci seen bopp ñoom daal li xamul li ñu xam li leen neex ak li rafet loolu daal la ñu xam léegi nag boo solee lu bon au lieu que nit ñi daal lay delloo si waaye da ngay ay nit ñu naan toj nga fi nga gën a rakkaaju bu subaa nga def lu gën a yées la ne yaa ngi fiy toj ginnaaw suba ñu ne yow day nangam nangam. nga topp ko topp ko topp ko nag ba boo solatee yére sax kenn du xam ndax yére nga sol wala déet kon fa tabaarakallaahu nañu roy sayyidina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam nañu jànga nañu jàngaat ay jikkoom jàngaat doxalinam moom rasulillahi seen émission Madhoun Nabi bii nag loolu lañ fas yéene di waxtaane jikkoy rasulillahi ak njàngaleem ak na mu daan doxalee bu ko defee ngir ñu gën a xamaat suñu diine mbokk yi nañu jàng alxuraan am njàng du wees nekk ponkalum jëmm bi jaabu weex tàll mokkaloo benn saar gàcce la wala booy jàng di yàq loolu gàcce la loolu dem toog di jàng moo ko gën sama sëriñ dina wax naan léng ne jànguma ne léng di jàng moo ko gën kon fa tabaarakallaahu jàng minal mahdi ila lahdi mu ngi tàmbalee bi nga juddoo ba keroog ñu lay teg ci jàkk di la yóbbu armeel kon fa na nañu jàng ndax bu ñu jàngee xam waaye nag ku jàngul doo xam te ñi xam mun ñoo yem ak ñi xamul loolu la yàlla wax yàlla yàlla dolli sutura yal na yàlla dolli jàmm ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dox jox euh, dig daje ci yeneen i ci seen émission Madhoun bi ci seen télévision Safina TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu